ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تلاه mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci weer wu màgg wu tedd wi nga xam ne moom lañu dugg te nekk ci fukki fan yu njëkk yi ñu ngi ci ndokkeel jullit yi ci àdduna si yëpp di ci ndokkeel itam waa réew mi yëpp eh, di nuyu eh, jiital ci nuyoo bi ak ndokkeel gi الشيخ محمد المنتقى الخليفة العام لطائف المريدية حفظه الله ورعاه وأيده ونصره di nuyu Serigne Modou Mahfouz bi nga xam ne mooy xalifa soxna si di ko ñaanal yàlla subhaanahu wa taala yàlla sàmm ko wattu ko ba mu eggale ak mbébét yëpp ci daraje shahru ramadan al mubarak li nuyu Cheikh Abdoul Ahad bi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi euh, di ko siyaare bu baax a baax te di ko ndokkeel ci bis bi euh, di nuyu itam mboolem ñi nga xam ne ñooy taxawu bis bi euh, ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu te leen siyaare ni ñu ko waxee rek sànq bis bi moom ñaari tomb rek la waaye di ñaari tomb yu am solo. bu njëkk bi mooy jëmmi laylatul xadr nga xam ne moom aw turam rek turu turu tur woowu ñu ko tuddee rek wane na dimension wane na moom euh, ni mu toll ndax yàllaa ko ko tuddee du kenn ku ko moo ko tuddee laylatul qadr guddi gu am daraja guddi gu am solo di guddi goo xam ne suñu borom bari na lu mu ciy dogal ci biir guddi googu nga xam ne bari na loo xam ne doomu aadama Euh, ci mbiram yëpp ci guddi googu bu dikkee sunu borom subhaanahu wa taala ci la koy dogal muy guddi goo xam ne lii sababu euh, yàlla jox ko xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo di euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gisoon ne xeetam bi seen fan dafa guddut ni xeet yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon xëy di ko jiitoon dañ daan am fan yu gudd lool ñii di am juróomi téeméeri at ñii di am juróom benn téeméeri at ñii di am sax ba ay at waaye mu gis ne xeetam wi moom eh, seenu fan taxu leen a gudd te fan wu gudd dafa am solo lool ndax ci nga mën a liggéeyalee yàlla lu bari ci nga mën a defe lu bari loo xam ne da lay amal njëriñ amal njëriñ diine ji amal njëriñ xeet wi mu xemme moon nag loolu ci aw xeetam suñu borom subhaanahu wa taala eh, jox ko laylatul qadr ne ko loolu yi ngay xemme mu ngi ci biir laylatul qadr daal di koy wax ne ko laylatul qadri xayrun min alfi shahr guddi la goo xam ne am na wàccuwaayu junniy weer junniy weer boo ko seetee juróom-ñaar fukki at yu tegal la juróom-ñaar fukki at yoo xam ne nit jaamu na ko yàlla bu laylatul xadar dikkee nit jaamu ca yàlla suñu borom jox ko yoolub juróom-ñaar fukki at yooyu te tegal kon loola moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëggoon ba moo taxoon mu doon xemmem euh, laylatul euh, xemmem seenu fanu gudd suñu borom defal ko ci loolu muy guddi goo xam ne it muy anniversaire u alquran mën nañoo wax ne alxuraan ci guddi googu la ko yàlla wàcc euh, muy lu am solo si alxuraan mooy li nga xam ne mooy téere yàlla bi nga xam ne ci la moom la wàccee euh, rëdd ci mboolem loo xam ne bëgg na doomu aadama yi di ko doxalee seen adduna ak seen diine ba adduna yi tukki lépp loo xam ne yàlla soxla na ko rek wala mu bëgg ko rek wala mu digle ko def na ko ci téere boobu Euh, moo tax guddi googu mooy anniversaire u alquran moom ak Kazu Rajab dañoo bokk ay mbir kee mooy anniversaire julli kii mooy anniversaire u alquran muy lu am solo loo xam ne jullit yi euh, bu ñu ko xamoon danañ ko gën a fonk ndax lislaam bu ñu koy wax alquran a tax ñu di ko wax lislaam bu ñu koy tagg moom mooy téere bi nga xam ne Euh, moo indi loo xam ne téere yi fi jëkkoon jiitu ko fi indi na ko indi li nga xam ne moom lañ tollool tey jii indi itam li nga xam ne mooy ñëw ëllëg waaw al maadi wal xaadir wal mustaqbal mboolem yooyu yëpp alxuraan da ko lamboo kon ci guddi googu la ko suñu borom subhaanahu wa taala wàcce ci asamaan si di ko wàcce nag ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mat ñaar fukki ak ñett loolu nag daal di nekk loo xam ne lépp loo xam ne sunu borom bëgg na ko rek wax na ko ci biir téere boobu te loolu lépp mi ngi ko wàcc ci genn guddi gii nga xam ne mooy laylatul xadr muy guddi goo xam ne eh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko réyaloon lool te fonk ndax dafa daan wax soxna Aïcha radiallahu anhu ne ko eh, mooy guddi gi nga xam ne lépp lu ci nit ñaan suñu borom subhaanahu wa taala da koy nangu Aïcha laaj ko ne ko waaw guddi googu bu dikkee man lu may wax euh, euh, allahuma innaka afuwun mu ne ko del wax allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anna allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anna mu ne ko loolu nga ci wax yàlla yay ki nga xam ne ab jégalaakoon nga Euh, te it da bëgg képp koo xam ne nit nga ngay jéggale kon nag maa ngi lay ñaan nga jégal ma mu ne ko loolu daal nit mënut a wax lu gën baat yooyu ci bisub laylatul xadr waaw ndax doomu aadama li nga xam ne moo koy gàllankoor lépp mooy bàkkaaram bàkkaar mooy jéng bi nga xam ne waxtu ko nit amee rek dina bari lu mu war a fa fu mu waroon a egg te du fa egg ci wàllu yàlla ndax bàkkaar saa bu ko nit amee te yàlla jégalu ko dana tee mu jàng alxuraan am na bàkkaar yoo xam ne day tey jàng alxuraan nga xam ne boo ko amee da nga bëgg a jàng sax te doo ko mën am na bàkkaar yoo xam ne day tee nga julli boo bëggoon a julli sax day mel ni dala tënk doo ko mën am na bàkkaar yoo xam ne day tee nga fab sa alal di ko joxe yooyu yëpp moo tax ñu ne bàkkaar moom mooy problème mooy li nga xam ne bu nit fexee ba sunu borom dugg séqati ko suñu borom rek fu mu mën a fu mu bëgg a egg rek mën na faa waaye sa soo xamee ne bàkkaar am na rek doomu aadama am na lu ko gàllankoor moo tax yonent bi tànn eh, ak njëggal ñaan yàlla ak njëggal ci guddi googu nga xam ne lu ci nit ñaan yàlla boo ko ñaanee sunu borom subhaanahu wa dana la ko may yàlla wax ne tanazzalu almalaikatu wa ruuxu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salaamun hiya xatta matla'il fajr malaaka yi sunu borom da leen di yabal ñu wàcc fii ci kaw suuf ànd ak sidna jibril mu jiite leen moom mooy ruux moo tax mu ne tanazzalul malaayikatu war ruux fiiha bi izni rabbihim loo xam ne nag yàlla moo leen ko digal ñu wàcc ci kaw suuf eh, di wax nit ñi salaamun aleykum wax nañ ne ku ñu dajal danañ la ko wax kër guñ dugg danañ ko fa wax euh, lu dul rek kër goo xam ne lu mel ni xeeti mala yi nga xam ne dañu koy bañ mu lu mel ni li ñuy tuddee mbaam xuux euh, wala lu mel ni li ñuy tuddee kalbu wala ñaari nit ñoo xam ne dañoo jubadikoo te te defaroowuñ ci seen diggante ñooñu rek yooyu rek ñoo ci dul bokk kër goo xam ne loolu am na fa duñ fa dugg waaye gépp kër goo xam ne itam ña nekk am na lu dox seen diggante ci xeeti ñàkk a juboo te juboowuñu ñoom bu laylatul xadar dikkee bokk nañ ci ñi nga xam ne malaaka yi duñ jaar ci ñoom duñ dugg ci seen kër te duñ wax ak ñoom dara kon loolu itam day wane ne guddi la goo xam ne bu dikkee war nañ cee fexe ba nit ñi jubawutoon nit ñi nga xamante ne dafa am lu doxoon seen diggante ñu fexe ba rafetoo ñu fexe ba kenn ku nekk defaroo ak sa moroom ñiy defare itam bis boobu dikkee mu nekk occasion boo xam ne dañuy defare nit ñi ndax gannaaw euh, xéewal gu rëy googu ci am euh, ñu jubawul ñu ne ñoom duñ ca bokk kon fexe ba nit ñi juboo guddi googu occasion la ci euh, loolu nag mooy continuer ba ba ñuy julli fajar xéewal yooyu yëpp day wàcc ci doomu aadama yi ba ba ñuy julli fajar kon guddi gu màgg la guddi gu tedd la goo xam ne bu dikkee bëgg nañu ñu fonk ko lool sëñ Tuubaa radiyallahu anhu fonkoon na guddi gi lool way na ci lu bare bare bare bari na xasaayit yu mu ci def yoo xam ne xëy na jataay bi dafay xaw a xat ba duñ ko mën a détaillé andi ko noonu waaye nag <clears throat> lu bare bare bari la euh, kon loolu moo wara lool euh, soxna si sëñ bi fonkal ko boppam euh, ndax sëñ Tuubaa dafa fonkoon alxuraan fonk koor fonk euh, bisu guddig laylatul xadar ñetti yi moom sëñ Tuubaa fonkoon na ko lool alxuraan euh, koor ak laylatul xadar alxuraan moom kenn ku ne gis na ni mu ko woon fu ne wax na fa ne alxuraan mooy sama diine alxuraan mooy suma xarit alxuraan eh, mooy sama wéttal alxuraan moo ma teg ci yoonu siraatul mustaqim ba li ma am lépp ma am ko waaw kitaabu ko diini wa huwa xilli wa munisi hadaani bihi lhaadi wa nafsi bihi sabba kon foofu la tegoon alxuraan nee na lim am lépp alxuraan ak ko may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 bu la gisee daan na lay fab teg la foo xam ne yow sax da ngay dem ba boo xawee ñàkkam xel da nga naan man xanaa daal léegi damaa xamul sama bopp waaye fii ma soxla si sek ah, nangam a nangam te loolu lépp ak baaxam ak fonk doom aadama ak fonk taalibi Sëñ Tuubaa rek moo taxoon yàlla defal ko loolu mu doonoon koo xam ne it taxawaayam da ngay dem ba jàpp ne kii nag bii taxawaay daawuñ ko xam ci jigéen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 fexe na ba jàng koy am fa mboolem yi nga xam ne mooy tax nit avancé jëm kanam yëpp boo ko xoolee ci soxna May koy gis ba moo tax dafa nekkoon koo xam ne référence la ci ñi nga xam ne dañuy woote mbirum jigéen di ko woote noo xam ne day mel ni ñoom dañuy xeex ngir am seeni aq soxna si moom da leen bëggoon a woon ne ay aq desu ko xeex des koy liggéey ba am ko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 rawatina jigéen ñi woote ne xaw ma féministe la ñuy wax xaw ma lan émancipation loolu dañ koo war a wëlbatiku nafar ku mel ni soxna May soxna May ku ñu war di nafar la ku ñu war di jàngaat la rawatina ci génération bii ñu toll léegi nga xam ne dafa dem ba nga xam ne nit ñi dañoo réer xamatuñu fuñ jëm xamatuñu fuñ jugee xamatuñu fu jëm kon loolu dafa laaj nag bu dikkee ku mel ni moom dafa jaroon ñuy def ay séminaire sax ci moom di xoolaat ay doxinam siira yem bi nga xam ne moom la doon doxee loolu lépp ñu fexe ba xam ko jàngal ko xale yu ndaw yi nga xamante ne ñooy door a jóg ba ñu xam ko ndax loolu moo nu manqué li nu manqué suñu jamono ji mooy ñu mel ni moom ñoo xam ne mën ngaa wone seen euh, du du ay wax rek da ngay mën a teg loxo ci seen i jëf ku ne teg sa loxo ci li nga xamante ne moom la jëf loolu maa ngi fàttaliku laylatul xadar bii rek benn bis boo xam ne damaa ñëw fii sama kër gi ma am fii jàkkaarloog moom yàlla dafa dogal ma demoon ba jamono ñëw ma di ko bëgg a soppandiku bëgg koo jaay te waxuma ko kenn ma ñëw fii di ko ziyaare si di ko tàggu itam di war a dem umra maag sëñ maag sëñ Modou ñii ñoo àndoon Eh, bi ma dikkee tàgg ko ne ko man de damay bëgg a umra ji xam naa bis bi moom foofa la may fekk mu daal di may ne ah, am kër fii ma ne ko waaw am naa fi kër de waaye defaraguma ko mu ne ko mu ne ma na nga ko defar defar ko damaa bëgg dëkk ak alxuraan te yéen moom da ngeen a fonk alxuraan lool te man damaa bëgg a dëkk ak alxuraan doo ko jaay ma ne ko déedéet fekk booba de waxaale naa ba juboo waaw naa ba juboo banga nga xam ne moom fay rek ci des loole moo waral tey jii sama kër gi jaayuma ko ngir wax boobe mu ma wax ne dama bëgg a dëkk loole alxuraan loolee lu lu ci man la loo xam ne du duma ko fàtte mukk ci moo tax def naa fi daara alxuraan joo xam ne may Maymuna laa ko tuddee ba tey itam ba ñuy dem mu ne ma euh, foofee de danañ fay taxawal laylatul xadr ci Makka ak ci Jidda damaa bëgg boo demee yaag sëñ Jiili Mbàkke moom sëñ Fallu yéen laa ko teg seen loxo bu ngeen demee ngeen taxawu ko nga xam ne masaan dem ca consulat ba booba sëñ Abdou Lahad Mbàkke mii moo fa nekk consul buñ ñu demee sëñ Jiili moo koy taxaw nekkal ko fa man ma yor wàllu waxtaan wa ak ci ci laylatu xadar mboolem ñi fa nekk ñëpp te di sénégalais danañ dikk ci kër ga màggal guddi gi loola diirub man dama fay dem ñi ngi koy def bu ma delsee itam danaa delsiwaat ci moom waye boo egsee li muy njëkk a bëggee bokk na ci mbégteem lool xanaa bu ma ko nettalee li dafa xew ba mu ne ma ah xanaa loolu de moom ñi ko am bariwul de ma ne ko yow rek yaa ko am mbakki waaw dama dama dem ba am daayira boo xam ne daa nekk ci wetu ku baax kookee ñu di ko màggalal laylatul xadar foofee xanaa loolu de ñu ko am bëriwul ma ne ko yow rek yaa ko kenn ama ku dul yow di amab daayira ba ci wetu sallallahu alayhi wa sallam loolu de mbàkk yow dong am yaa am di ko defal laylatul xadar foofee mu bëgg lool loolu lépp ci liggéeyal lislaam rek taxoon mu di ko def loolu lépp itam liggéeyal Cheikhul Khadim moom képp moo taxoon mu di ko def yar mbooloo mu bari lool di jigéen di góor yoo xam ne kenn ku ci nekk yar na la ci lislaam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 laylatul xadr dafa yokk laylatul xadr dafa egg ci dimension boo xam ne léegi dootu dimension Touba wala Sénégal waaye dimension international rawatina nag yeesal yu bari yi nga xam ne moom lañ ci def ci wàllu conférence yu ñu ciy def nga xam ne Cheikh Abdou mi moo koy teewee ñoo di ngi ko ciy ndokkeel bu baax ndax am na solo lool ak euh, brochure yi ciy génne nga xam ne at mu jot danañ koy génne loolu lépp ci liggéeyu laylatul xadr la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 ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر